asalaamualeykum askanu Leewtoo TV asalaamualeykum askanu Sénégal amaan mbégte jàkkaarloog yéen fas yéene leen présenté seen émission bi ñu tuddee face to face bi nga xam ne nii Leewtoo TV da koy dalal da koy amal chaque vendredi tey nag ñu am mbégte war ko set ak euh, benn invité de marque boo xam ne nii El Hadji Thioune koy woowee moom mooy manager wala agent bu mbër bi di Tapha monsieur Thioune maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay mon frère. oui ñu war a waxtaan ci sa combat poulain bi bi mu war a amal ak euh, Boy Niang 2 dinañ waxtaan également ci actualité làmb ak lépp lu wër làmb pour démarrer émission bi am na ñuy am jaaxle ci yow ci sa euh, fonction ak Tapha Tine soit manager nga wala agent nga est-ce que mën nga ñu indi ci ay leeral. man je son agent. Mhm. oui avec mon mon grand frère. Papa Thioune d'accord lan mooy différence entre manager ak euh, agent. no bariwul. Mm-hmm. waaw parce que agent ak manager amul différence pour man bu bari mm-hmm. parce que manager bi am na rôle agent bi am na rôle am mm-hmm. waaw mais souvent day am coow entre ñaari fonction yooyu dañ koy noté ci euh, biir làmb ji ñii ne agent warul am manager moo war a am nan ngay dundee coow loolu waaw mais kooku ku nekk ak sa xalaat rek mais ñi xalaat loolu peut-être seen idée moo toll foofu mais agent am na rôle bu muy def boo xam ne rôle boo xam ne ménager bi sax mu war moo ko waroon def mais agent bi mi ngi koy def. d'accord mais ak lépp ci respect. d'accord mais est-ce que mbër soxla na à la fois mu am manager ak agent. ça dépend. Hmm. waaw sa dépend de stratégie bi mbër bi war a jël ak euh, ni mu mun a. ni mu jëlee plan de carrière ak li mu bëgg a def. Mm-hmm. waaw foo xam parce que agent bi. Mm-hmm. am na fu muy egg foo xam ni peut-être ménager bi du fa egg. c'est vrai ku nekk ak sa rôle. Mm-hmm. waaw ménager am na. agent am na dañuy respectante rek ku nekk liggéey sa liggéey. d'accord léegi ñu dugg sa combat ak euh, sa Tapha Tine combat Tapha Tine ak Boy Niang gis na ne depuis Tapha Tine depuis 2018 bërewul donc tegale na deux saisons yoo xam ne saison blanche lay def loolu est-ce que du nekk handicap. non du nekk handicap avant may répondre aussi ci question boobu. Euh, maa ngi nuyu waa Leewtoo yëpp. waaw di nuyu seen équipe. Mm-hmm. di nuyu aussi Pape Thialis bi nga xam ni moom mooy organiser combat bi. waaw di nuyu aussi sama grand frère bi nga xam ni moom laa àndal. Mm-hmm. muy Papa Thioune. Mm-hmm. waaw maa ngi koy nuyu di ko delloo wàccuwaayam daal. d'accord waaw. ok est-ce que du handicap de saison blanches de suite. no du handicap parce que boo xoolee en général ñëpp a def saison blanche. waaw parce que Covid oblige. waaw boo xoolee actuellement mbër yëpp. ku ci nekk def nga saison blanche. Mhm. te loolu du coobaree mbër bi du mhm. coobare promoteur bi. Mhm. waaw dafa waroon am yàlla moo ko indi ah, xam nga moo tax dañuy dem avec quoi. ok Tapha fan la toll ci préparation malgré que ne Covid bi mu ngi fi date amagul mais est-ce que mu ngi ci ay préparation bu baax. mais bien sûr Tapha mi ngi préparé bu baax. waaw ah, ñu ngi def suñu préparation normalement. Euh, comme fu combat bi amoon suba sax ñun pare nañu. d' accord dégg nañ Gaston démb mu ne jël na 4 avril pour euh, tëgg combat Eumeu Sène ak Lac de Guiers 2 est ce que yéen Pape Thialis woo na leen pour prévoir benn date wala pas encore. non pas encore waaw woowagunu mais ñun ñun pare nañu pour def loolu. Mhm. parce que huis clos bi mun na am. ça dépend rek ci organisation bi. Mhm. parce que buñ ko organiser ah, état bi accompagner les promoteurs. Mhm. je pense que mun na nekk parce que agence. Euh, numérique euh, mm. de de de de l'État ah et l'informatique ñoom bu nu bëggee accompagner huit huit club bi dinañ ko def parce que mm. l'État déjà am nañu agence le mm. numérique et l'informatique boo xam ni ñoom mun suñu bëggee organiser affaire bi am na ay techniciens yoo xam ni buñ ci buñ ci gëstoo liggéey ci mais loolu mun na nekk ak accompagnement de l'État mais loolu day nekk euh, dina dikk ci huis clos bi ci kanam mais pour ñu rester ci Tapha Tine Tapha Tine dañu gis euh, dernière sortie bi mu def moom ak ñoom euh, la Balla Gaye ci biir euh, ci RFM dañu gis mbër yu fa daje woon yëpp sa poids moo ëpp ñu fa nekk ñoo ñëpp est-ce que ak par rapport ak mbër bi muy bëreel poids bu ndaw la am est-ce que poids boobu da ngeen koy war a maintenir ba jour combat bi wala da ngeen koy wàññi pour que mu am mobilité. non xam nga actuellement ñu ngi dañu def nekk ci déroulement. Mhm. ñu ngi déroulé. Mhm. waaw te xam nga combat bi actuellement xamaguñu kañ la. c'est vrai waaw Tafa mi ngi dérouler ndànk entêtement yi au fur et à mesure ñuy gën a approché hmm. nga gis changement yi day am hmm. chaque fois day am changement ci préparation ba pare tafaa tamit il est entouré de beaucoup de techniciens hmm. yoo xam ne ku ci nekk day joxe xalaatam waaw ñu ngi xool daal man plan la ñuy jël boo xam ni plan boobu mooy gën a positif pour mun a euh, am victoire d'accord yaa ngi ko wax bëri ñu koy entouré mais souvent ñu gis ci entourage yu mbër yi entourage dañ leen di permettre du bëreeg seen sago dañ leen di téye de telle sorte que jour combat bi au lieu ñu bàyyi lutteur bi bëri ak sagoom dañ koy jox ay conseils yoo xam ne nii finalement da koy da koy freiné la preuve dernier combat am moom Balla Gaye au lieu que mu ñëw moom fooram moom moo doon dóor mais au lieu mu dóor dafa dikk di xaar ba Balla Gaye euh, daane ko ci combat boobu. waaw mais de toutes les façons euh, moog Balla Gaye kooku pour man c'est c'est dépassé. Mm-hmm. li nga xam ni moom moo am importance moment bi mooy sunu combat ak Boy Niang. oui du dëgg. Mhm. alors peut-être euh, préparation bi mu defoon ci ci ci Balla Gaye ak préparation bi muy def ci Boy Niang mun na am différence. c'est vrai stratégie. bi mu mhm. amoon ci Balla Gaye mhm. ak stratégie bi nu nar a jël mook Boy Niang euh, mun na am différence. waaw loolu la quoi. mystiquement également dafa parfois ñenn ñi dañ naan mystiquement dafa xaw des tuuti est-ce que dangeen koy yokk walla. waaw de toutes les façons euh, yàlla baax na quoi xam nga àdduna. Mm-hmm. Euh, nit euh, mystique am na. mais mm-hmm. man li ma gëm. Mm-hmm. seul le travail paye quoi. c'est vrai waaw nit tafa bu liggéeyee ni mu war a liggéeyee. ah sérieux ci li muy def. Ah, dem ak détermination. ah yàlla mën na ko suturaal quoi. après mystique bi mooy ñëw pour man en deuxième position. c'est vrai am na sortie bu ñu defoon nee ne rêve am moom mooy nekk roi des arènes. en plus euh, entre les ténors moom moo ci seul lutteur boo xam ne nii amul occasion bëre roi des euh, roi des arènes bëre roi des arènes est-ce que yaakaar nga ni un jour euh, Tapha Tine am na possibilité bëre roi des arènes ak nan lay def ba atteindre objectif boobu. waaw loolu mun na nekk xam nga liggéey dafa laaj temps. Mhm. waaw te Tapha il est conscient actuellement que il est temps. mu teg affaire bi ci temps. pour mun a persévérer et propulser pour dem de l'avant. Mhm. il faut mu def ko. waaw kooku cas de force majeure la. te bu ko defee bu tegee euh, fi mu teg tànkam actuellement. bu bu tegee liggéey bi ci yoon sérieux ah ak détermination sans tricherie. dina attendre objectif yooyu yëpp mais pour l' instant li nga xam ni moom laa la mën a wax. Mhm. avant ay roi des arènes nag ay lépp moo ci am li am solo. Mhm. mooy combat bi nga xam ni moom la war a bëre ak Boy Niang soit. Mhm. mu nekk huis clos. soit mu nekk ak public. Tapha il est prêt à se décarcasser. waaw euh, liggéey bëri normal teg ko ci yoon. yaa ko wax huis clos est-ce que ànd na ak làmb. mais ànd na ak làmb. Mm-hmm. déggoo li ma lax agence de l'informatique. Mm-hmm. et numérique. de l'État. Mm-hmm. bu bu nu bu nu gëstoo ñoom plan yi nu war a def pour huis clos. man maa la wax dinañ dinañ accompagner làmb ci. ok dinañ accompagner làmb ci état bi euh, soo xoolee Jeux olympiques. bi bi nu war a def dans quelques années. Jeux olympiques yi l'État du Sénégal. a signé un pactole de cent trente millions d' kooku dafa bari te ñooñu ñëpp dafa am ñoo xam ne dañ leen di accompagner. ay boîtes privées ay direction pour leur promotion. Ah, ah kooku ñooñu mun nañu anticiper euh, la promotion de de euh, du du jeu olympique. ah invité euh, acteurs yooyu pour ñu ñëw commencer def la promotion. du jeu olympique à travers la lutte. parce que actuellement. Euh, euh, jeux olympiques euh, de la jeunesse. mënuñu won tubaab yi lu gën a doy waar làmb. loo xam ni suñu culture la. Mhm. te la culture moo am solo. te mënuñu woon lu gën a am solo que làmb. d'accord mais est-ce que accompagnement boobu nga wax état bi am na moyen pour accompagner ko làmb. mais bien sûr état bi bu bu bu nu organiser woo. grand. Mhm. gis nga àdduna loo organiser mu tegu ci yoon day dem. Mhm. xam nga le président de la République la dit que nous sommes en guerre. oui ma un pays qui est en guerre parfois da ngay xool génne militaires yi. Mhm. am na militaires yoo xam ne ils son déterminés. boo leen génnee tey comme par tey euh, euh, euh, kii nu mu tudd arène nationale. booy organisé d' accord am na ay forces de l' ordre police gendarmerie. Mhm. di def liggéey bu xarañ mais tey bu bu leen militaires yi accompagner. ñu teg organisation bi ci yoon. respecter les mesures barrières. Euh, wàññi euh, public bi. accompagne leen mais kooku dañ koy def parce que tout tout récemment j'ai entendu que l'État mhm. woo na promoteurs yi pour ñu budgétiser. Mm. seen seen seen seen seen gala yi nga xam ni moom la ñu organiser mais bu ñu budgétiser après État. dina xool ci lan la leen mën a accompagner. Mhm. su boobaa euh, promoteur dina am ouf de soulagement. pour mun a continuer seen activité. Mhm. te su boobaa man gis naa ay opportunité mhm. parce que soo xoolee bu ñu defee huis clos am na yu bari yoo xam ni daan na am ci làmb côté manque de sécurité bi côté casino bi nekkoon foofu. Ah, ak public bi nga xam ne dañuy ñëw jaxase làmb ji. alors bu ñu defee huis clos dinañ ci jàng lu bari loo xam ni. dinañ ni ah ok kon léegi su boobaa sponsor yi doon bañ sax violence ci làmb ji. ak yeneen ak yeneen. dañuy gën a ñëw. mais loolu dafa laaj Sénégal bari na ay nit ñu am xam-xam. nit ñi am xam-xam yooyu yëpp nooy toog xool yan opportunité yi mooy gën a favorable mais bu ñu ko defee mais day dem mais bu fekkee ni dañuy nekk di wax di wax kii di wax gauche kii di wax droite. Mhm. wax boobu moo fi war a jeex. d'accord il faut que les gens commencent à travailler. xoolal def des réflexions def des forums. Ah, toog waxtaan ku ci nekk indi sa xalaat te ñuy bàyyi waxul détail ay ménager agent yooyu amul làmb dafa danga ciy daf lay day nekk sa passion wala mu bañ a nekk sa passion man làmb bu fekkoon tey nekkul sama passion du ma ci dugg d'accord que xamal ma la man làmb lu tax ma dugg ci sama papa mhm. moom dafa yàgg ci làmb di entraîner booy Bambara d'accord xam nga mu nekk sama passion ba sama papa avant muy génn àdduna Euh, bi mu feebaree bu ma daan dem làmb le dimanche. Mm. di damay ñëw ndeysaan toog ci kay watam di ko ko expliquer mu kontaan. d'accord booy bambara bu mu sànn daan le matin euh, su daanee avant muy dem fenn day ñëw suñu kër. kon xam nga ñun loolu passion la ci man. c'est vrai du ay dama ci dugg naan ay agent ak ay ménager yooyu c'est un c'est un débat caduc. yooyu amul ñun l'importance li nga xam ne ku ci nekk sa lóor lóoral na ko def. Mm-hmm. te coo amul. d'accord mu bàyyi jëm ay wax lu détail yoo xam ni amul sens. d'accord wax nga ko làmb sa passion la mais est-ce que Tapha Tine moom mooy sa première euh, action ci biir làmb wala avance tafaatin amoon nga doon accompagner yeneen bërë wala genre yu demee noonu. non Tapha waaw Tapha Tine mooy suma premier. Euh, mhm. koo xam ni. nga euh, accompagner naa ko ci làmb. aussi de mus naa nekk ci sama papa Boy Bambara temps mu nekk ci activité. nekkoon naa aussi di ko jàppale parfois ci écurie am quoi. Mhm. waaw léegi ñu wax ci beneen ci actualité arène mooy sànq brosé nañ ko tuuti mooy les mercredis de euh, l' bi CNG bëgg initier loolu est ce que yaakaar nga ne luy jëmal kanam làmb la. CNG di organiser non comprendre ko CNG daf ne chaque euh, mercredi day tëgg combat espoir yi arène nationale au lieu que promoteurs yi tëgg pour mu jàppale jeunes euh, lutteurs yi ñu ñu ñu ñu mën a bëre. moom day tëgg chaque mercredi làmb léegi loolu la tuddee les mercredis de l'arène est-ce que yaakaar nga ne loolu dina jëmal kanam làmb mais baax na mhm. loolu baax na loolu idée la parce que jeunes yi jeunes jeune soo xoolee jeunes yi nga xam ni dañoo am licence dañu bari mhm. te jeunesse bi aussi bu fekkee dañuy entraîner te amuñu combat day metti mhm. ah même maa ngi remercier waale de passage un jeune frère qui s'appelle Bamba Mboup ki nga xam ni actuellement mi ngi def affaire bu bien di former euh, insérer et former mhm. des des lutteurs pour euh, garde rapprochée et sécurité mhm. yooyu yëpp c'est des choses yoo nga xam ni état bi da ko war a gëstu pour jëm leen accompagne oui euh, naa ko kii brosé waale muy combat MMA bu Reug Reug yaa ko wax sànq mën na am yeneen ouverture yu du lamb rek est-ce que yaakaar nga ne MMA mën na imposer Sénégal waaw de toutes les façons Reug Reug maa ngi koy ñaanal. Mm-hmm. parce que sànq liir naa ko ci journal bi. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla suturaal. yàlla na ko yàlla defal ndam. waaw parce que moom bu amee ndam euh, rek ñun Sénégal yëpp nooy am ndam. c' est un très champion. Mm-hmm. mais loolu yëpp ay réflexion la laaj. xam nga mais man li nga xam ni moom laa gën a euh, maitriser mooy la culture ne mourira jamais. te làmb dafa am culture làmb dafa am bëree. am manifestation culturelle euh, nga xam ni dina dajale euh, culture bu nekk loolu sport bu riche la daal c'est mais Reug Reug yàlla na ko yàlla suturaal amiin waaw euh, bi dernière question bi ñu ngi nii mois de janvier mais ba léegi combat combat yi démarré wul est-ce que loolu du am njeexital ci saison bi waaw mais xam nga yàlla baax na ko parce que xam nga tey moment bi dañu nekk ci période bu nga xam ni période bu délicat la mm-hmm. parce que Covid bi boo xoolee euh, activité yu bari Covid bi moo ko xaw a stagné. c'est vrai nanu ñaan ensemble yàlla suturaal nu euh, Covid bi dem. Mm. mais nag d'autant plus que du tax ñu bañ a organiser. parce que je pense que gars bu ñu defee réflexion nu ñu ko war a defee. Mm. Ah, ah collaborer avec euh, bureau informatique et numérique. Mm-hmm. de l'État. Ah, ñoom xam nañu bureau boobu ñu xool nu mu organiser orienter nit ñi. organiser lépp à huis clos ñu commencé xool Gaston il a dit hier que il va essayer. mais moom bu essayer te Gaston c' est un très grand promoteur. alors bu e, bu essayer bu fekkee ni vraiment gars yi gis na que kii am na euh, di di mm-hmm. vraiment positif. mais après dañuy continuer ci ci ci lancé boobu. bu boobaa tamit Pape Thialis pense que dina def. même chose parce que Pape Thialis tamit keroog gis naa benn interview mm-hmm. mu ni e, e, effectivement il est prêt. Mm-hmm. pour def. Euh, à huis clos moom tamit. waaw si condition yi état bi jàppale ah, promoteur yi état bi ni leen jàppale. oui agsi nañ ci njeexitalu émission bi sa dernier mot. sama dernier moom mooy yal yàlla def sutura. amiin yéen tamit euh, yàlla defal leen sutura. Leewtoo bi ngeen nekk euh, yàlla tuturaal leen. da ngeen am ngantam télé. waaw ci barke Seydina Mohamed. et bonne continuation. di di di di nuyu suma grand. bi nga xam ni moom laa àndal muy Papa di ko remercier moom mi nga xam ni aussi daf ñuy taxawu. ci côté yu bari ñun ak Tafa yëpp ah, di ñu conseiller di ñu lu ñu war a def mu orienter nu maa ngi koy remercier di ko di ko ñaanal quoi. jërëjëf mi ngi noonu mi ngi noonu loolu moo doon seen premier euh, numéro face to face ñu seqoon ko ak El Hadj Diouf yaakaar naa waxtaan wi neex na dégg ngeen ko te am na njëriñ également ñu leen jox rendez-vous ci beneen vendredi incha allah jërë ngeen jëf.